waaw man de dafa ma li ñuy wax rek ndax dañ ne xayrul kalaami maa xal la wa dal la wax ji gën mooy bi gàtt te am njariñ biram dañ lay wax yow ak waa Pastef wa aw fu bi la di sàmm leen kóllëre yi ndax inna la dakaana mas'uula kóllëre ëllëg yàlla da koy laaj te xam nga kóllëre mooy lan bi ngeen soxlaa maire pour ñu fal leen ko ñi fi nekkoon bari na lool diis ñu ko suñu xel dal ci yéen ñu tabb leen ngeen soxla député laaj ñu ko ñi fi nekk am na ñoo xam ne seen i nijaay dañ doon laaj seen i bàjjen seen i ñu bàyyi ñëpp nelawuñu lekkuñu naanuñu di leen campagnal ba jox leen maire jox leen député ba ngeen ñu koy laaj amul benn yoon bu ngeen taxawee ne ñu bu ngeen ñu ko joxee dañ koy bàyyi pour jox keneen wala cumul tuddalu leen ñu cumul waxu leen ñu cumul waxu leen ñu da koy bàyyi di ko jox keneen yéen ngeen ñu waxoon seen profil doy ñu ñu wóolu leen jox leen suñu kàddu kon nag lenn lañ leen mën a xamal mooy bindu leen ci seen charte parti Pastef ne cumul de fonction du am moo ko waxoon 2019 ne buñ ko falee te faluñu ko 2019 comme faluñu ko nag dañuy xaar ba fal ko lu ngeen di def ngeen def ci ndax gor ca wax ja waaye heure bii ñun waa cees boo bàyyee député baa nga bàyyi maire ñun waa zone nord man ak mbooloo mii ma àndal yëpp xam nañ ñu ak képp kuy yaa saydaa dootuñu leen voteel ndax la gor ca wax ja téyel sunu maire yi téyel sunu euh, député ba keroog incha allah 2024 yàlla jox la réew mi nga nekk premier ministre Ousmane Sonko nekk président de la république incha allah rabbuna la salaamaaleykum. Mat si membre de la coalition Yewwi Askan Wi. population bi Birame Souleye Diop du waa ñoo ko fal Birame Souleye Diop coalition Yewwi Askan Wi moo ko fal Birame Souleye Diop waa Thiès Nord ñoo ko fal loolu dama bëgg ñu xamal ko képp koo xam ni mi ngi ci Pastef ak engagement yi nga xam ni avec tout le respect bi ma am sunu naataango waa Pastef ñu xam ni coalition Yewwi Askan bi moo ko fal te coalition te Pastef mënul taxaw ci kaw coalition Yewwi Askan bi Pastef mënul taxaw ci kaw population Thiès parce que ñu xam ne population Thiès ñoo choisir su Souleye parce que au niveau de coalition Yewwi Askan bi au niveau ci Thiès Nord on était 14 candidats 14 candidats yëpp ils comme biram su lay ñëpp am profilu Birame Souleye mais intérêt population Thiès noor moo tax ñu bàyyi ñu ñëpp suñu bëgg-bëgg jox ko espoir bi ñu teg ko ci kaw Birame Souleye kon donc ay engagement yi nga xam ne président o Sonko jëloon na ko ci élection présidentielle 2019 nañu bàyyi ba Ousmane sonkoo toog si ci 2024 bi engagement yooyu mën koo def amul loi amul lenn loo xam ne tere na Birame Souleye euh, di bàyyi sunu mairie bi ñu mën la xamal yow Birame ñun ñoo demoon ci terrain bi biram ndox mi sunu kaw la doon setteeku ñoo demoon ci biir kër yi Birame ñoo doon wax ak sunu yaay Birame ñoo doon wax ak rak Birame ñoo doon def sunu xaalis di def sunuy moyen Birame ñoo sacrifier sunu vie ndax yow kon donc benn minorité ci biir benn parti mënul taxaw ci Euh, kaw population bi ñu ngi leen di xamal ni lii bu amee bis ni ki tey euh, population Thiessois yi nga xam toogoon nañ seen kanam di wax ak ñoom niñ la weddee noonu la ñuy weddee te day nañ ci Thiès goo xam ne am melokaan boo xam am dayo boo xam ni liggéey fi loo xam ni tey ñun rus nañoo dellu ci kër yi naan lañ lay wax waa koñ ba parce que boo bàyyee suñu maire am na ñu taxaw fii ci koñ bi am na ñeneen ñoo xam ñi ngi yor seen i malet taxaw ci buntu kër yi commencé ñoo ñoo wër conseillers commencé wër ñi nga xam ne am nañ fa baat pour mën a récupérer maire yi biram loolu laa bëgg nga xam ko bis ni ki tey lenn moo nekkoon suñ slogan muy Thiès debout kenn duñ tànnal maire mais biram donc euh, su fekkente ni décision bii mu jël àggale na ko muy maanaam mu bàyyi maire bi wala mu bàyyi député bi kon donc ñun li ñu doon xeex ànd koog moom loolu lépp day nax saay day day day wàcc ci suuf bon man message bi ma koy lancé moom mooy premièrement moom kàddoom mënut a ëpp kàddu ñu ko fal te lii mu bëgg a bëgg a doxal ni la moom képp moom la bëgg a doxal beneen bi si topp mooy bu ko defee du biram moom moo war mais Pastef day war cees te ñun Thiès dëbu li ñu yitee lépp mooy li askan wi wax loolu la ñu wax ànduñoo kenn askan wi lañ àndal moom askan wi moo ko fi teg du moom moo fi jëlee boppam na toog ba askan wi jëlee ko fi ne ko bëggatuñ la fi comme ni ñu fi jëlee ay moromam bu jotee bis bu ñu ko wonee am nañ fulla Thiès am nañ fulla toll ni dañ ko fi teggi teg fi keneen du moment où nag gis nañ bi ñëwee ba léegi wax wax ji wax ji mooy na fi toog ñun en tant que Thiès ci loolu la ñuy ànd ak moom muy lan dañ koo dénk na téyel nit ñi liñ ko dénk bis buñ ko bis buñ demee ba doyatun li danañ jëlaat liñ am nañ fulla ju toll ni lañ ko dénkoon te mën na nekk wax nañu wax nañu jëf combat la le combat nag semaine sur le terrain bu fekkee ne laaj na bés bu nag ñëw jonkan fii wax ak nit ñi ensuite ñi ci des ñu wër commune noor wax ak waa nord di tax ñu faloon biram rek lan la bu njëkk boo xoolee maire yi dañ leen di fal ñooy taat conseil municipal dajaloo ci seen biir fal maire bu daan indi corruption corruption boo tax na ñu dàq ko def maintenant direct kon man du ma ci sori sama xel dal na ba ma gisee banderole bii guerre bi day soog di commencé na ni ñëpp solitude de combat ñu xeex mu jeex wasa. problème bii nga xam ni moom la ñu yëkkati mu jëm ci affaire u Birame Souleye ñii naan dafa war a bàyyi assemblée nationale ñii naan dafa war a bàyyi mairie bi ba tax moom ci boppam mu mel ni ku xaw a ñëkk di dafay bàyyi mairie bi. loolu la ñu bëgg xamal nit ñi ni ñun population Thiès nanguwuñ ko tey nanguwuñ ko ëllëg te loolu dañ ko teg ci ay argument de raison le premier argument de raison mooy cumul de mandat ba fii ñu toog ni terewuñ ko Sénégal muy première chose boo xam ne kenn ku si nekk war na cee d'accord deuxième chose mooy bi nga xamee ni dañ doon promettre cumul de mandat ni euh, Ousmane Sonko en 2019 ba mu koy promettre ni su faloo dina ko dindi comme faloogul loolu kenn mënul appliquer sa bopp benn loi boo xam ne existé gul kooku il faut que nit ñi bàyyi ci xel beneen bi mooy mandat yi nga xam ni tey moom lañ jox Birame Souleye Birame Souleye moomu ko mandat la yoo xam ni population yi ñoom ko moom waaye yow soo yoree sa tool am ñu lay bëyal béy ma baaxul nga dem ba loolu naqari la nga wëlbatiku léegi daal di jël beneen équipe ni ko béyal ma équipe boobu bëgg a tool boobu nga ko joxoon jébbalaat ko ñi nga xam ni ñoom ci boppam ñoom nga sikkoon est-ce que loolu xel nangu na ko loolu la ñu bëgg dugal biram Souleye ñuy wane nag ñun d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg bi ci des mooy fonction maire ak fonction député dañoo mës a nekk ay fonction yoo xam ni dañoo ànd parce que amul benn maire boo xam ni souhaité woo dem assemblée nationale pour défendre les intérêts de sa localité lii la ñu amoon ci ay kàddu yu gàtt loo xam ni bëggoon nañ ko fësal di wane ni population Thiès bañ nañu ba euh, fu seen bañ mën a yem